من اي كونفرنس يبري شيخ الاسلام مولانا الحاج ابراهيم لو بري واخناكو سي لولو دخل سي بري وايي هيت ني بري سيدل نورو شيخ ابراهيم بيم جوغي دا فنوال قصدي فيهم ان اسوقهم الى حضره البر الرحيم الى هنا سما انتاشيون suma hëdëf suma jubluwaay ci xeetu yonent yàlla muhammad wi sallallahu alayhi wa sallama mooy ma ommat leen jëmee leen ci pays borom bi subhaanahu wa taala waaye ci mazharu rauf ak yàlla subhaanahu wa taala feeñu waayam yi dafa bari gaynde goo dajeeg ci àll bi mu lekk la sax yàlla ngi lay wattu ca biiram ba waaye wattu googa gën a leewut la noonu nam la gën a lee mooy mu wattu la sa kër sa néeg ak ci say liggéeyukaay fekk yaa ngi am jàmm motax cheikhul islam ne an asuqahum ila hadratil barri rahim ilahina bay lacte dafa lacte adina bi yeb cheikhul islam mu ngi lacte muné wa ta'lamu hal fil khalq way wee tax mu wa ta'lamu hal anta taalamu yani wa taalamu hal fi lxalqi axna alayhim mada dahri minni walbaidu kama dana mu ne ndax yow xam nga ci mbindee fii ku ma leen ëpp yërëm koo xam ne gën na ma leen a yërëm man koo xam ne man gën na ma yërëm mbindee fii gën naa bëgg jàmm ci mbindee fii ku mel ni man alaaji Ibrahim ñas ndax xam nga ko cheikhul islam mu ne boo ko xamee rek andi ko te lu tax loolu mooy maolaana cheikhul islam haaji Ibrahim bi mu jugee yàlla dénk ko bépp moyen boo xam ne mën na cee tasaare mission yi yonent yàlla muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam doon nu yonentu ci tasaare jàmm doon nu yonentu ci rek le nit ñi daf leen ñuy ay nit doon nu yonentu ca jikko ja ci jaxasoog doomu aadama yi doon nu yonentu ci diplomatie doon nu yonentu ci nekk général yi armée ba pare taxaw ci makka taxaw ci madinatul munawwar ci kanam yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam borom xam-xam yi arab yëpp ñu ngi taxaw cheikhul islam ne diine ji jërut mbëkkante jërut màttante diine ji jërut mbëkkante jërut mbëkkante jërut màttante parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallama maa gaza ma sa xeex ñu ne ko déet alaaji ibrahim loolu ëpp na di ñaata xare lañ ko limal mu takk ko enu ay jaaseeg ay xeej ànd ak ay saxaabaam nga ne mës ta xeex mës ta xeex mu ne aha kañ balaa sadda udwaanan wa radda dalaala dafa am ay noon yu doon ñëw yonentu ne leen rëddal naa leen rëdd yi bu leen ko passé dafay ah. défense ay noon pour ñi nga xam ne ñuuñu la ko yàlla boo lekk te seen yitte mooy fayoon l'islam te seen yitte mooy fayoon l'islam oustaz ibrahima mahmoud diop suma sëriñ daana wax mu ne waxtu wu ne yuriduna an yutfi'u dana fi ne waaye it waxtu wu ne loolu yëpp ballaahu dana fi ne loolu mooy lan na an yutfi'u mooy waxtu wu ne. leer ak yàlla gi am na ñoo xam ne seen itteeg seen mission yëpp. mooy taxaw mooy taxaw rek fay lislaam taxaw rek pour fay ko. mu ne waaye waxtu wu ne. waya ballaahu dana fi taxaw. waya ballaahu googu nag duhut ay waxi kese. déedéet mais jëmm ju yàlla di jëmmal la mu jóg di def ay action pour. appliqué waya ballaahu yàlla googu. Hmm. cheikhul islam Mawlana Alaaji Ibrahim. loolu moo doon liggéeyam. mu ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama. ما غزا مستقيخ ما غزا بلا صد عدوانا ورد ضلالا ويلول بلم كو وخ فيم وخيلول شي مدينه شي بروم خم خم يو بري بري مو ني بن بروم خم خم دا فا جوغ نكو ديدت ديدت ابراهيم نصبر وخ لولو سو وخي لولو دا فاي ملني تايل لو خالاي شي الاسلام دنج كو ورا خيخال الاسلام دنج كو ورا فك ميغي تاخو استاذ ابراهيم محمود جوب مو نكو برام وخال مالين فلا سيفا إلا نحو سيف قد اعتدى علينا فلا نرضى بضيم ولا بزي بالله شيخ الإسلام نه ديب جاسي فلا سيف إلا نحو سيف قد اعتدى علينا لدو جاسي جملني جنر جاكتي سي سونو كاو ñi bocci jaasi كونك tam pour اكسي ko بابي ko nag ñun بوبو صلى الله عليه وسلم مملا la alquran ne ko woon wa in janaxu li salmi fa jinax laha wa تي بي بولا غاني la gaañi ooxee ci paix bu la gaañi demal nga uyu lépp luñ ci lal ci souf man sa borom subhanahu wa taala man ma ci taxaw cheikhul islam enu flambeau bi ne wa biya yurfaul jawrul azim azimu allahu akbar wa innahu bi faydiya ad-din rafu liwa'i ci man tooñ gi fi ne ci la fi he ci man ta ci suma fayda bi la l'islam di yekete darapoom lu tax loolu sallallahu alayhi wasallam. bala ñew jigen jigéen amutoon solo dañ koy jur ba mu di am xéeg di jank bu mat nga ne du ma muk, nit du dug suma keur di nop sama domji. ji te yow da nga nobante ji ba am ko yonentu bi fo la fekkone fi yi dindiko cheikhul islam fu mu mooy ne jigéen bu xamee lu muy jullee rek baax na Seyda Roqee binti Cheikh Lislaam a ngi nii di jigéeni africain bu njëkk a taalif téere pour wan gaa ñi tanbihul bintul muslima ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne Cheikhul Islam moo tax bi mu di tukki même Cheikhul Islam pour def lii. Mhm. pour liggéey liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallama pour dox mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dafa dem di dem ni ko waxee di dajeek ay xeet yoo xam ne. limi lak xamuñ ko li Cheikh ibrahim di lak li ñi lak ñom bay xamuko Cheikh ibrahim am zahir lay wax. parce que daw wax naa la fi ne. cheikhul islam buy tukki bàyyi ñasam gëlee yóbbaale wax naa la ko daw waaw radiyallahu anhu way bu yóbbuwaalee bay ñas gi ruux yi muy waxat lak bu mu lak dañ ko xam lolo tax cheikhul islam mbollem làng yi mu man leena dajale. bay di tukki ba taxaw laaj bopam ne lam adri لم ادري اي دون نو جي كومبران با مان صاح خموما مي لول كين خمول مو دون لم ادري يو خيت غو ديم مونا واخك نيوم موي نونو موجب السياحه التي مودم بام ياغ نمان خاوما مان مان صاح كومبراندو مان الا لم ادري لم ادري موجب السياحه التي قهرني المولى لها وعلتي قد برئت قبل بلوغ الحلم الله اكبر وفقت في العرضان كل القوم لمن كومبراندو ما صاح سما توكي ما يدفني لان لا لان لو خيو تمن مولم لما سخلا سما برام جوخنا مكو فك ماغي سما لاي تايل بيرسو وقد تم فتحي عند مهدي وقد عانت جميع رجال الغيب تحت قضائي فما قطعوا في الشرق والغرب فتفدا الى مكه الا لشم شذائي ولملا وعين اليوم عين محمد صلى الله عليه وسلم هيكل وروائي شيخ الاسلام مولانا الحاج ابراهيم ني ماغي دم رك واي دمام جي مام Cheikh Mbacke Gaynde Fatma waxon nako ko mom leralal nañu ko de. waw dafa egg ci mom fek mu ngi seti bamuy egg fek yalla jàng ñepp ñeppal mu ne ko ibrahim Ibrahima lu jaral qus tawbi pour seti ay mbok ci diine rek. man de wour na mané daf la leer né bamél yoro mu ñu jégg jégal seen borom. allahu akbar am Cheikh Mbacke mom mu maam Cheikh Ahmadou Bamba moko sédel li daf maa wóor ne bàmmeel yoroom rek ñu jégal seen borom. Sheikhul Islam Maulana Alhaji Ibrahim radiyallahu taala anhu ame kaalak yonantu boobu sallallahu alayhi wa sallam rango ko ame dokkob yonantu boobu mu doon ne ci Seydi Ahmed Tijani radiyallahu anhu nga xam ne toog na bés mu ne bushraaya bushraaya xuztu alladi wallahi ndeysaan moom Cheikhul Islam ne bushraaya xuztu alladi qad azza madrakuhu asal imaam Tijani sirtu amlikuhu man de bég naa man Alaaji Ibrahima kontaan naa de ndax am naa lu jafe woon jafe woon na de ñu ne ko lan la mun a ettu Cheikh Tidiane waa ngi nii maa ko amee muy suma dokk ñu ne ko loolu rek la mun a déedéet wa xayru zalik mimma lastu na lakinnani xustu sirran qad azza madrakuhu mu ne ak yu dut yooyu yoo xam ne du ma ko tudd waaye lu mën a xew mooy man am naa mbuut moo xam ne jafe woon na pour am ko te mbóot moomu bokk na ci ndigal lim làq moom cheikhul islam ak tànk yi mi doxee moom cheikhul islam pour tasaare haddina bi pour wan leen ne yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy jëmmi jàmm te dox bi yëpp nag dox bi yëpp moom cheikhul islam karaama bu mu mën a def boo ko laajee rek mu ne wa zalika kulluhu bi hubbi sayyidil mursalin alayhi salatu wa sallam lii yëpp maa ngi ko tasaaree ci bëgg yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que boo tokkee toppee tukkam yeeg ñi nga xam ne may na leen jàmm amna ko xamne Baye daf ko fekk gaana hmm mu gisee Baye rek xol bi daf ko ne ki def jàmm ci xol yaangi ni nii Baye ne parce que waji dafa ñëw tim Cheikh ibrahim nan alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah rabbil alamin cheikhul islam ne li ru'yati karara shukran allah لحسن ظنه بعبد الله ملاقته لو ما انا بذاكر wa ma ana bi zaak mu ne waa ji maa gis di baa mu tudd yàlla sant yàlla ngir rafet njortu ci jàmm bi waaye man duuma kooka yaani duuma kim ma foog te wax naa la ne cheikhul islam lum ma def nit ñi bëgg koo rek dafay tëdd ci suuf ne du man Seydi Ahmada Tijaani la radiyallahu taala anhu kon mission am Seydi Ahmada Tijaani moom la doon dox te nettali naa la ne moom Mawlana Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima lu tax mu war a tasaare mbiram yonantu fii la toog ci roon baayam baayam di ko jàngal ku yonantu yàlla Muhammad fii fii dégg nga ci lew naag ca Gambi maa ngi nuyu waa Gambi yëpp sunu imaam imaam Mouhamadul Muntaqa al Khalifa. Mhm. maa ngi koy nuyu bu baax aw waa Gambi yëpp. Cheikhul Islam baayam di ko jàngal kuy yonantu bi ba baayam jugee fii mu ne matlabi irsu usuli suratan sama càkkuteef mooy doonu sama baay baay nag loolu baayam di ko jàngaloon. mu yokk ci li ko yàlla may mu toog di xool yonantu ba yàgg mu ne mu ne ara annama alhaadi al amina ila huna qad ilxafahu ma faata fikri wa xaatiri araahu qad istawla ala almulki qaayiman wa awsaafuhu min kulli batnin wa zahiri fa taaha wa rabbul bayti aynun wa innama yara al ayna aynan gaibun gayru xaadiri muy wax ju kenn mënta firi Cheikh Ibrahima ne man de maa yéemu ci yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man de damaa gis ne yonent bi jubal nit ñi yàlla may na ko lool faat na suma xel mi man alhaaji ibrahim ñas radiyallahu anhu te xelam bàyyi lu ko faat man gisuma xel mu ko mën a mën a mën a jàpp mhm. ndax maam babacar si bi muy tagg saydi ahmada tijaani radiyallahu taala anhu dafa ne maqaamaam cheikhu tijaan fa laysa al aqlu ma waraa tawri al xija mhm. law نيكو نقل موي كوكو مانا ديكوفرير دنت بروم خيل موما دا فياتو باينه فطاها طاها مي ورب البيت گنا تي يالنا عين جملا تا جم ورا مانا گيس موني واي عينن غائب نيكو في جملا حاضر نيو في دير نيو في تاك نيرام مو نيو رك تاك نيرام موي كي محمد صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله واي عبد الله ميم ن غير مشبهين به بشر من رام ذلك سفيه بكتك بند من دفكي اتني روك موم دانا دف كوك موم لنيو القرآن وخني وعلمو أن فيكم رسول الله لي لنيو تامبلي إن شاء الله مولانا شيخ ما شاء الله